بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه مك جلدي مك سبي مك ودارجي انا بني سنت برم سبحانه وتعالى يلجين انت صلى الله عليه وسلم ان يوغين سنيم الاستعداد لصوم رمضان seen émission bi nga xam ne daara ji mu ngi koy mu ngi leen koy indil ci waxtu wi mooy waajaayu koor te nit nag war na préparer nag nu muy waajaree ak kooram nag seen émission mu ngi leen indil nag yow ndonge wi nga xam ne da nga fekk ci wax yeneen tuy baata sawm nga fekk ci wax yeneen tuy baata maa ngi lay indil na teqantal wowule yow ndonge wi nga mën a xam baatu farq bayna sawm wa siyam lu dox ci digganteeg sawm wa siyam léegi nga fekk yonent bi alayhi salatu wasalaam di wax ne asawm léeg-léeg nga fekk muy wax asiyaam mu wax ne lan mooy farq woowu ëllëg man naa ci indi ay namo zaj yu bari nag ينتو عليه الصلاة والسلام دي واغتشي أجوار جنة قمنة دفعي وار دفعي وغني إن الفضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلته سحر أما فوه بعتو صيام لا جفا اندي كونت أكونت بايلقل أخي انتبه عليه الصلاة والسلام شي لولي ليه وعين كنونت نون لا يوخي شي نين احاديث يو خمن بعد صوم لي استعمال لي جفند كوتي دوي واف صوم من تخف بالضاد كي بوكي واخ اك اللغه العربيه ان دعاء عليه الصلاه والسلام موي غنا غنا فسا شي لولي كون دال بعد صوم اك صيام سنيمسو الاستعداد لصوم رمضان mu ngi leen indil di leen tàqaleel loolu le mooy baatu sawm ak siyaam léeg-léeg nga fekk ko ci wax yeneen bi alayhi salaatu wasalaam wala maa yi ñu ngi jàngale nag bu fekkee baatu sawmu kooku alquran yaxal na ko naka noonu it baatu asiyaam alquran yaxal na ko boo demee ci asawmu على ما نلقى في ردال موي بنيا صوم وكموي امساك عن الكلام موي جاب ولسوخ القرآن إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا كوك سورة مريم بدمي تلايو دانكو فيك أما باتو سيام نت كوكموي امساك عن الطعام موي جاب ولس لكنت أي امتناعه عن الطعام والأكل والشراب كوكو القرآن يخلقو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كنا صوم دال نين كو جيغليل عن الكلام بو نيا صيام كو نين كو جيغليل عن الطعام وي ولس لك المستمع والمستمع كي الاستعداد لصوم رمضان موي بريباراسيون اكور سين ايميسيون وولي كون يو جوليت فو مانتا تولو préparel waajal koor ci deñtalu ci ñaari jikko yu doy waar ji lee muy ñaari jikko yoo xam ne dafa yàq na aji woor ji kooram dafa yàq aji woor ji wooram bi def ko yàq muy alxiibatu wala kasib muy jëw ak fennet da lay jikko yu doy lañ te nekk loo xam ne l'islam du wut ci koor rek la la ko tere net waaye waajalal sa bopp nag nga préparé sa bopp nag dàq ak jëw ak fen sa lami woowule am na solo yénent bi ba mu laaj saxaaba yi ne leen atadroon mal xiiba ndax xam nga luy jëw yéen saxaaba yi ñu ne ko allah wa rasula alam yàlla ak yeneen toog ñoom ñëpp ñoom rek ñoo xam lu ci yàlla namm nag yéen ne xiiba daal du wut dara an tasgoro ak xaake bi maa yakkara kon nag yow jullit bi waajalal sa bopp ci woor ah ci fexe nag dindi jukko wu doy waar wii la nag ah boo demee ci at yoo xam ne lay su ma ko sole jël ko ci mujaahid nee na xaslataani ifsidaani asiyaam alxiiba wal kasib minaa ñaari jikko nga yoo xam ne dafa yàq aji woor ji wooram muy alxiibatu wal kasib te yénent sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit mën naa def lu nekk moom mooy fen al mumin al mumin لا يكذب اعجل دفنت كنت حديث وي فري واخ جوجلي مي حديث لا يسمى جلي كزم جاي ما حديث نغا خمنا ابو هريره صلى الله عليه وسلم ان دعى من لم يدع غول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع الطعام والشراب كوكر رواه جماعه الا مسلم انتو علي صلى الله عليه وسلم نينا من لم يدع كيب فكو بيو الغول زور وخي وحجو قمنا جو ولا عمل اكجف بيه كمبوصور اعفا ليس الديت لله نيل يلا حاجة بين صالة في ان يدع كيب بي باي طعام وشرابة كون بسنا بارين كوار نعب لامنيم نعب اك قتمي اعد قول كلو حرام ولا دي وخ وخي مبوصور من عبايل آه، سكورجي waaw sa ñàkk gi nga ñàkk lekk ak naan yàlla soxlawu ci dara nag bàyyi loolu la kon loolu moo tax nag seen émission al istiadaad li sawmi ramadan indi leen préparation woor ci ñaari jikko yi ñu gaaw ah dañ ci nag ah bu fekkee ñu ngi ci woon ah buñ ci nekkut ñu gën a sant yàlla góorgóorlu ci te bàyyi ko ndaxte yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man lam yadaa xawla zuuri wala amal bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa wa sharaba ah gis nga ne bari na sax ñoo xam ne ay jaahil lañ ñu réer lañ boo ñu naan damay dàq koor ah kawtéef yaleen tewoon ñu dëkk badoo ah dàq woor yow sa koor gi mu ñëw nga ne da koy dàq mu dem ah loolu lu doy waar la ah ñu si bari na seytaane mooy ki jël baat yooyu def ko seen xel yi ñu koy waxee ñu foog na baat yi wér la waaye valable baaxut ah baat yi amul benn njëriñ جنن جن انتبع عليه الصلاة والسلام ميوخ بليغ رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيام إلا الشهر ينتمنا برنا عبرنا وار جو قمنا أمتي وارم جلول الجوع عمي قيف برنا أجي تخو دي نافلة أمتي تخو وايق نافلة إلا الشهر لما يفقرت وكروا النسائي وابن ماجه والحاكم كنا المستمن والمستمع تي الاستعداد لصوم رمضان سنين مسوا وولت لولا لين اندلون تي ان شاء الله ني لي جوخ ديك دجي با منين يون الحمد لله ولا دعوانا واخيرا والحمد لله من حين الى حين والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ني لا ما ديك توب دافا نكو ديفال لينكو الحمد لله ولا دعوانا واخيرا والحمد لله من حين الى حين